asalaamaaleykum mercredi 1er octobre 2023 li gën a fas ci bopp xibaar yi bokk na ci fukki nit ak benn yu ñu teg loxo ginnaaw nag bi jee ji amee ci kaw lax ab nit la ñu daal di sulli ci ah, biir tombam daal di koy taal ci kaw tali bi mu mel ne nag ñu bari jàpp ne jëf joojee ñoom li ñu ko tax ñu def ko moom mooy waa joojee dafa nekk nag homosexuel te warta nekk ci biir cimetière yooyee mu nekk nag loo xamante ni procureur ci boppam dafa daal di auto-saisir ci dossier bi daal di nag décider ubbi ab l'enquête depuis ci weekend bi mu mel ne enquête boobee sax moom moo jur ñu daal di teg loxo ak benn actuellement ñu nekk garde à vue foofu ca commissariat central bu Kaolack ci naka noonee la ñu daal di nag wëree ñaari nit yoo xamante ni dañu daal di nag jamono ji xam seen identité kenn ki nag ñu ngi ko xamee ci ab vidéo bi circulé ñu gis ko muy diri euh, moom néew boobee di Cheikh Fall ci biir cimetière yi keneen ki nag dafa daal di accordé ab entretien ci benn site à la place di wax ni moom ci boppam moom moo jëndi essence ngir ñu mën a taal ki nga xam ne moo di Cheikh Fall mu mel ne nag ñu ngi leen di toppee ay chef yu bari bokk na nag ci li association de malfaiteurs euh, profanation de lieu de culte acte de vandalisme incendie volontaire ak yenen chef d'accusation yi nga xamné ne mu ngi leen di euh, tegu ci sen euh, ndodd mu melni nak épisode boobee wajul pour jeex ndax procureur ci bopam mom mo auto autosaisiru té l'enquête ba mu ngay wëy ba ñu daldi tek loxo fukki nit ak ben yenen ñaar ñi nak identifier na leen ba jamono ji ñu ngi leen di wër foofu ca biir Kaolack leneen li gën a fës ci bopp xibaar yi bokk nag ci euh, décès Papito Kara bi ñu annoncé ni ki démb mu mel ni annonce boobee jur polémique bu bari ndax ñu ci bari dañ ko daal di démentir waaye kenn ci famem rawatina sax frère dafa daal di def sortie ni ki démb ngir nag indi ay information yu leer moom la mu daal di wax moom mooy amuñu benn nouvelle bu kap Papito Kara mu mel ni nag Papito Kara ni ki dimanche bu weesu la daal di quitté woon Sénégal ànd ak benn jarbaatam ngir dem euh, foofu ci jaaree ko ci mbëkk mi mu mel ni nag euh, ci naka démb ci suba si ci la nag jarbaatam daal di jël euh, téléphone papito kara daal di woo famem wax leen ni yegg nañ waaye nag Papito Kara nekkul ak ñoom mu mel ne nag kàddu yooyee jarbaatam bi yëkkati nekk lu tey xel loolu fa même ndax ñoom sax lañ doon ñaan mooy képp ku am nouvelle Papito Kara mu xamal leen ko ci naka noonee tey jii la ñu daal di euh, nag am confirmation ci information boobee ndax kii di Ousmane Diagne moo publié léegi ci à l'instant euh, ci li nga xam ne moom moo di page Facebook am officielle wax ni euh, nouvelle bi nga xam ne moom la ñuy laam-laame depuis démb lu dëgg la que ni Papito Kara mujj na wuy sunu borom moom nag la mu daal di wax moom mooy na ko ñëpp ñaanal moom Papito Kara ndax nag jàmbaar la woon waaye nag demam gi mu quitté woon Sénégal ngir nag jaar ca géej gi ngir dem foofu ca Espagne dafa mujj nag ñàkk bakkanam ci yoon bi ñu koy ñaanal yàlla xare ko ci àjjana si di jaale tout sa famille ab polémique bu am depuis nag bu ñu daal di refusé jox euh, mandataire Ousmane Sonko fils de parrainage mu mel ne nag depuis boobu ba tey ab mbiccoo ak mbaaloo mu nga am ci diggante euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo sekk jëf joojee mu mel ne nag ni ki démb waa Sénat nag dafa daal di nag demandé à DGE ñu daal di nag rétablir Ousmane Sonko li nga xam ne moom moo di liste électorale yi waaye nag daal di jox mandataire am li nga xam ne moo di fils de parrainage mu mel ne nag loolee la DGE daf ko daal di nag refusé catégoriquement ndax ci ab communiqué ñoom it la ñu di wax moom mooy mënuñu jox Ousmane Sonko parrainage ndax turam nekkul ci liste électorale yi mu mel ni nag ba tey jii may wax ak yéen Ousmane Sonko avenir ci wàllum élection présidentielle yi di ñëw ba tey leeragul ndax fii may wax ak yéen fiche de parrainage yi nga xam ne moom la war a ut a bokk ci jogante boobee fiche yooyu ba tey mandataire am ko te ba tey nag ab xëccoo mu ngi am ci diggante ñi nga xam ne ñoo sekk mbir moomee Sénat dugg na ca DGE bañ catégoriquement waaye yenn nañ ci avocat yu Ousmane Sonko ñoom ba tey ñu ngi daal di xeex ngir Ousmane Sonko mën a rétablir ci liste électorale yi waaye nag jot fiche de parrainage ngir mën ci élection présidentielle yi merci de nous suivre Actu tous les jours